monsieur Demba Diop nuyu nañ la. maa yow yaa ngi nekk ab inspecteur du travail ak sécurité sociale. tey. Hmm. ñuy amal la conseil euh, présidentielle jëm ci xëyub ndaw ñi. ci jamono ji nga xamante ne ay ndaw ñu bëri ñu ngi yor seen lijaasa toog te amuñu xëy. lan lañu hmm. war a def ngir rek assurer ndaw ñooñu xëy. oui euh, conseil présidentiel bi déjà dama koy rafetlu parce que lu am njëriñ la parce que Sénégal yàgg nañu wax waxu xëy te kenn tegul benn ponk bu wane ni si nañu jëm ay président wax na xaalis bu bëri bu takk bu mu ci bëgg def waaye aussi organiser na conseil présidentiel bi mooy takk na ñëpp taxañ leen ñu laxasaayu jëm ci mbiru en réalité xëyu ndaw ñi et ndaw ñooñu man damay fàttali Sénégal dañuy juum toujours naan soixante quinze pour cent de la population est jeune pour cent jeunesse su Sénégal trente cinq pour cent de la population réglé seen bopp parce que jeune mooy ko am quinze ba trente cinq ans ñooñu trente quatre ba à trente cinq pour cent de la population la si on veut vérifier les donc tey état bi def na cette rencontre là mu doon loo xam ne lu lu rëy la mais volonté président aussi manifesté na ko mais man dama gëm ni ci ay actes ci ay jëf nañuy convaincre jeunes yi te jëf yooyu dafa war a dem fii li ñuy wax service public de l'emploi ñu jël benn bërëb taxawal ka muy bërëb boo xam ni mooy lijjanti mbiru emploi sax mooy benn ñaar ñi ñuy wax secteur informel ñooñu ñu financer leen parce que financement yi di ko orienté si ñoo xam ni demandé wuñ ko sax amul njëriñ nañu financer les acteurs di secteur informel ñooñu déjà ñooy ñi nga xam ni entrepreneuriat mu ngi seen bopp te dina tax ñu am entreprise yu taxaw ñett mooy il faut que li ñuy wax transformation structurelle jënd ko muy suñu économie ni mu bindoo moo tax xëy ni mënut a bëre loolu il faut ñu xoolaat mais aussi jàppale secteur privé national bi parce que quand on parle de secteur privé national kenn waxul ay entreprise yu tubaab wala yu jóge feneen ñëw installé wu mais mu doon entreprise yoo xam ne doomaanu Sénégal ñoo ko yor nga xam ne li ñu mën gagné fii lañ koy bàyyi aussi def benn politique de transformation des produits en réalité locaux et des matières amoo leen xalaat ni yéene euh, président la république ndax mën na régler ñàkk bu xëyub ndaw ñi waa régler ñàkk xëyu ndaw ñi moom foofu amul fenn parce que même dëkk yi nga xam ne dañ ni plein emploi nañu egg dina toujours ñi nga xam ne dañuy dañuy xam chômage mais lenn moom moo am te des mooy président lu mu def nii en réalité musuñu ko gis histoire gestion de l' emploi au Sénégal maintenant nag bu mu nekk wax bu mu nekk ay annonce na nekk loo xam ni ay acte ak ay jëf ñoo koy matérialiser et man yaakaar naa ni au delà de wax bi mu def xaalis bu mu ci nar dugal dafa war nag xool parce que béréb yi nga xam ne moom na ñu def ci emploi des jeunes dañu bëri te jeunes yi amuñu fa accès tey di nga gis weer bi passé ñëpp toog nañ di communiquer ku nekk dem télé wane mais nit ñi amuñu fa sax accès donc président na tas loolu léegi jël benn structure dénk ko mbir yëpp jot def fa xaalis bi dafa fet lu ñu mënti def mu mu mën efficace man je pense que acte mooy tax jeunes yi gëm ko hmm. et tey toll nañ ci et je pense que président dina dina def lu mel noonu soobee moom am na yéene ngir saafara li ni mel waane terewul ba léegi am na ñuy dute ci yéene boobu nga xamante président de la république da koy amal est-ce que du acte mooy tax wala boog ndaje bi du doon occasion ci ay moom mu def ay jëf lu mën a dalal xel ñu doon sikki sàkka waa ndaje bi nag loolu ñu bëri dinañ man je pense que lii génn ci ndaje bi dina tax nit ñi seen xel dal wala ñu continuer douter mais man li ma xam mooy jafe yi jeunes yi di dund jafe-jafe yi nga xam ne moom la yenn structure même administration yi nekk man je pense que bu amul lu concret nit ñi en réalité duñu duñu gëm leen instant yi moom li ñu mën wax mooy mbiru xëyu ndaw ñeeg yu demee noonu ak noonu acte mooy tax nit ñi gëm parce que ñëpp xam na ni lu jafe la parce que essayé nañu lépp aussi dara doxul mais je pense que président nu mu ko songe bi pas man am naa yaakaar ni vraiment dinañ ci jëm ci yoon bu satisfaire ñëpp bu soobee yàlla. Demba Diop ñu ngi lay jaajëfal. di fàttali nag yow ab inspecteur du travail nga ak sécurité sociale.